mais mais gaal gi nga xam ne moom moom moom moom moom moom moo dajeeg marine bi ba am ñu ci faatu gaal sa gaal la. waaw sama gaal sama gaal la. maa laaj booy seen xaalis ñu jox ma ñu deux cent nit ñi man leen man mais bu xaalis moo ma taxoon a jug nii. mais lu tax nga laaj leen xaalis yaa laaj. booy yi seen xaalis parce que ñoom intéressé wu na ñoom pour dem Europe. ñoom intéressé wu fii koo fi wax mun la Europe lay fee lay fee booy yi tout le waaw koo ci wax ko. waaw da nga doon wax. kon moom maanaam xëy na kooku ci amul mm-hmm. ko mais kooku ci am loo ko laaj dara. kenn ku ne ñaata la fayoon. dañuy ay deux cent mille dégg sax bu ma lay wax nii danga naan gaañ bi day suuf est-ce que nee naa la lii bu ma doon may jekk na yàgg na. d'accord léegi gaal gi. deux cent mille deux ku ne deux cent mille la joxe ñaata la ñu woon. non ça veut dire bëri nit ñi moom bëri nañu. xam nga ñii dana joxe am na sax ñu joxe cent mille moo tax am na yoo xam ne boo koy wax nii sax donc dañ naan gaayal bi waxul dëgg ko mais sax amuñu la ko xam nga. Mhm. tey waxal ma ko quoi naan naan. mais ñooñu ñooñu doon encaissé ñenn fan lañ jógee. gaay gaay doon joxe man man nii la lay jox man. yow lañ jox yow lañ fay. man la lay jox. yow la wala joxal ma di mais am na ko loolu am na ko loolu am na ko un certain lot. amul kon kooku boppam la doon jël di def ci poosam. waaw ah. maa la wax lii man. mais yow yaa doon leen doon encaissé. dégg amul benn nit bi nga xam ne. Hmm. Ah, nekk nga feneen intermédiaire. Hmm. di jël nii xaalisu nit amul. kon booyee ci yow leen ñëw fay la. dégg nga wax ah, ci xëy da nga naan ma diw man la woo ko mu ñëw. ñëwee mun ma nekk la ma ne la man maay kii la mais lu tax bi gaal gi dem yow demoo. non gaal gi demul. dégg nga wax ñu. mais départ na. non gaal gi départ problème moo am xanaa déggoo ci interview bi ma def. am ah. problème moo am. waaw ah. bi ah. nga paa bi fii problème am na ma ne que après bi bi nga encaissé booy ba ñu yeb gaal gi ba pare ba nga encaissé xaalis bi da nga jël ku naan paap jox ko ko. kan xam nga nit toujours buy wax day wax te man li ma lay wax. Mhm. fii ba yow man xeeram. ci changer dara. dañu la man duma benn gaayan bi nga xam ne nii xam nga damay damay lekk nii ay riba quoi wala di def lu dul yoon. Mhm. comprendre li la. Mhm. bu dee affaire gaal yi dañu la tey ku ci encaissé exemple cinq cent mille cinq cent mille. ah ba yëpp ci soixante personnes. Mhm. non boo goree mën mais man nee la du xaalis moo ma tax a gaal gi lan moo lan moo indi problème mu gaal gi. voilà problème mu gaal mu am mooy. Mhm. pour li indi problème bi ba lii am laa lay wax. Mhm. man maa leen doon yóbbu sumbu yooyu di leen yeb ci ay taxi. sa client yaa leen doon yeb ci taxi di leen yóbbu. maa leen di yeb ci taxi. dégg nga xam nga ñoom ñëpp mënu leen boole yóbbu ko waaw mais bu ma arrêté trois taxi quatre. ci diggante ci diggante boobu tefes bi foofu parce que dafa am ñëw foofu ci tefes bi. Hmm. ni ñoom dañu bugg dem ci gaal gi pour dugg ci gaal gi te ñoom. bokkuñu ci yoon ca bokkuñu ci bokkuñu ca bëgguñoo fay. non ñooñu bokkuñu ci parce que ñooñu fayuñu ko léegi booy bi mu yëgee loolu mënuma. mu wax la ko mu wax ma ko quoi ma ne que comme affaire bi demee noonu léegi da ngay tekki gaal gi nga génn ma ne que ci île de serpent ma ne am na ñaari île la quoi ma ne ko da foofu. ngi wax. Mhm. ma ne nga prudent daal parce que marine bi xam nga souvent day surveiller. te boobu bi nga koy wax loolu yaa ngi fan. non bi ma koy wax loolu maa ngi fi mu doon yebee client kon da ngeen da ngeen ko yeboo ànd mu départ ba île de serpent. non kon da nga ko mu dawal gaal ba île de jamono yi may woo téléphone. man client mhm. ma wax. waaw ànd leen di jëli. yaraax. waaw yóbbu leen sumbu Mm-hmm. dégg nga pour yeb leen foofu. Mm-hmm. dégg nga pour mu génne ko quoi. Mm-hmm. ma ne ko lay génneel gaal parce que am na ñu des quoi. waaw personnel bi nga xam ne ñoo ci des nga waroon leen yóbbu. léegi nag kon bi nga leen doxee ñu kale ñoom taxaw si Île de ah, taxawuñu dañoo dem. non tax non bi mu génnee moom bi mu génnee pour dem ci Île de Serpent. dégg pour génne gaal. parce que foofu boo amee bruit lu mu yàgg-yàgg police fay ñëw. ma ne ko yi da ngay jéem a effacé wu ñu génn après rapidement dina am euh, rejoindre foofu di ko rejoindre il ne sert pas. waaw dinaa yow miin nga affaire yi de. <laughs> waaw léegi nag après ñoom ñu départ. mais mais kañ kañ kañ kañ kañ nga yëg nii. dégguloo li ma man il est parce que téléphone nga yor ma yore téléphone ñuy communiquer dégg damay ñëw ba ci gaal gi dugal fa ay nit xam nga wàcce. parce que toujours maa ngi surveiller li parce que man. waaw mais li li nga encaissé ci ñooñu ñaata la soo ko doon dajale. waaye dégg loolu ma grand dégg loolu ma la xam nee naa la. Ah. bu ma la ko waxee sax doo gudd ko ñaata dégg loolu la xoolal gis nga bi ma defee jënd lépp li ma war a jënd lépp ba lépp pare. Ah. xam nga xaalis bi lan moo ci des. Ah. dégg nga la mu des benn un million. Mm-hmm. cent mille. Mm-hmm. li muy wax bi nga jënd defee say frais yëpp. bi na defee frais bi lépp. ceeb ba dawli na. biskit ak gasoil léegi daal li ñu war a jënd daal xam nga li ma la xam. Mhm. li ñu war a jënd li ñu war a jënd yëpp. ma ne comme damay renforcer waat. Mhm. gasoil bi. Mhm. dañ nga wax un million cent mille. moo des dañ nga wax ah li desoon un million cent mille. ma ne léegi damay ñëw Dakar. dégg nga ni ma la wax. parce que jamono yooyu. xam nga ñoom bi ñu ñëw Dakar dañu ñëw ci ni sama benn copain sama xarit mm-hmm. di sama rak ma ne ko un million cent yii mm-hmm. gaz wàllaa koy jëndee mm-hmm. da ngay wax un million yii ci des teel ma ko fii maa ngi dem Dakar lu mu guddi guddi dinaa ñëwaat ñi ci dee ñëpp xam nga te et puis responsabilité bi nga li nga taxaw ci presse bi Euh, accepté que ni ñëw yow da ngay yóbbuwaatee ba sa gaal gi nga xam ni gaal gi nga xam ni moom moo yeboon euh, ñi yàpp euh, daje na ak marine bi ba am na ñu ci dee yow lan nga yëg jamono ji ay doomu jàmbur. non ay doomu jàmbur. ay doomu jàmbur ci sa responsabilité lañ nekk nag. li tax ay doomu jàmbur dee. Oh, waaw xam nga man. déglu ma ci sa gaal la ñu deewee. waaw non yaa leen encaissé. waaw waaw maa ngi lay déglu. xam nga nee la. booy yi dana bëgg dem Europe ñëpp moom la ne veillé. waaw dégg nañu la ñenn ñi dinaa dégg sax ci rajo bi ngeen di expliquer ñi di wax ko mhm. mais bu dee la réalité. seeni yaay noo leen di fayal. dégg ni ma la seeni yaay. noo leen di fayal ak seeni ay mag ak seeni ay gaañ yu am ay moyens. waaw noo leen di fayal xaalis mu indi. kon man mi leen juróom yëpp leen ci gaal. Mm-hmm. c' est moi la responsable. seen yaay yi suñu ñëwee luñ lay wax yow. non seen yaay yi du ñu am luñ may wax. suñu ñëwee tey jii di indi xaalis bi lan lan lay wax. non di indi leen. xaalis non ñoom seen doom la ñu mu dem. am na ci ñoo xam ne naan den naan su dee li mu nekk yow la moo tax ñu ñëw. effectivement. maanaam kon seen yaay yi dañoo am dañ laa xam. ba pare am ci confiance ci yow loolu loolu. tey tey tey tey tey dama la bugg wax ni la tey boo demoon boo liggéey. Hmm. wala nga dem ci yenn teer yi. Hmm. mën nga nax ñu bëri lekk seen xaalis. lu tax dañ ni leen Ibrahima yóbbu gaal gii may tëkk dañ jox seen xaalis. kon yow kon nga jaar fa dem sa kon parents yi dañoo am confiance ci yow. non dégluwoon bépp mool bu pas maanaam saa bu di dawal ko oto bi ban ci gën a hmm. mën dawal. bi mën a éviter. Hmm. kon noonu kon da xam yoon yi min yoon wi. non géej laa jàng. waaw d'accord léegi tey jii doomu jàmbur yooyu dëkk ngaay dëkk ñii dëkk Kayaar ñii dëkk Yaraax waaw nekkoon ci sa gaal gi gaal gi këpp am ñu ci faatu yow instant bi en tant que père de famille ba sa doom bokk ci ñi faatu hmm? yow lan est-ce que xam nga ni lépp ci sa responsabilité la yow loolu ma man nee naa leen lépp si li mu nekk sama responsable moo tax ma taxaw wax noonu parce que dama dégg xam nga fii toujours da dégg ay média yi wax ko hmm. xam nga waaw parce que nee marine bi bëkk na lee après déclaration am def na neuf personnes. dama gis nga wax ci benn vidéo ni marine bee leen bëkk. xam nga lépp lu nit di def rek. waaw am na lu nu ko wax wala am na lu mu mhm. dégg. dégg mu ni ma mu ne marine bi nee nañu moo leen bëkk ba pare def na déclaration ni neuf personnes moo ci dee. ma ne sama xel ah kon li dee bëriwul quoi mais nag. neuf personnes li dee bëriwul. waa déglu rek. ñu ni ñu ni neuf personnes moo dee. ma ne sama xel ah kon de li dee dese naa bëri. Mhm. ci soixante neuf personnes. Mhm. ñu ne neuf personnes a dee. Mhm. def déclaration nee moo dee. gaal gi il paraît quarante personnes ci nekkoon ay explication quoi noonu. après ma toog ma ni mais man c'est la responsable. ngeen leen. ma ne sama xel man c'est moi la responsable. quoi lépp mën a ko. parce que maa leen jël yëpp leen ci gaal. Mhm. maa leen doon fexe yóbbu affaire bi échec am na. Mhm. kon lépp lu ci am maanaam je suis d' accord. d' accord nga ni booy yooyu suñu dee yaa leen rey. jëluma leen mbëkk la dee ko. mais man maa leen yeboon ci gaal googu. li leen mbëkk nag nu ni marine bi la loolu la expliqué ni mu nee na nu bi moo leen mbëkk. ñoom loolu la ñu wax. mais ñëpp waxuñu lool de. ñoom ñu nekkoon ci gaal gi ñëpp bokkuñu lu ñu wax de. bokkuñu parce que nee nañu dañoo doon daw. marine bi arrêté leen. daf leen sommation pour ñu taxaw ñu lànk ñu waxaat leen taxaw leen ñu lànk ñu wax leen taxawaat leen ñu lànk ci la leen marine bi kar ñu ñu def collision ñu dalante. xam nga ku ñëw pour jóg sauver leen du leen bëgg noonu. Hmm. non déglu na boo koy dàq day daw sàcc boo koy dàq day daw. li ma jaaxal fit wi nga am ba taxaw génn. naan lii yëpp yow la yaa ko def man fit man jaaxal nga ma de. xam nga loolu loolu nag la jaaxal. gaal yi ngay yóbbu jëlee si ay doomu jàmbur fii di leen yóbbu Espagne ba sa doom def ci. est ce que bi nga koy def xamoon nga ne lii nii dañ koy tere xamoon nga ni doomu jàmbur yi ngay xamoon nga ni doomu jàmbur yi ngay yóbbu mën nañoo dee ñoom ñëpp. non non non xamoon nga loolu. déedéet bu doon mànd bu ma nekkoon ci gaal ga kenn du dee. lan moo tax kon nga yàpp encaissé xaalis si jàmbur ba pare ëllëg nga yóbbu leen nga leen di batale. xam nga non batale ma leen loolu lay bañ nga tudd loolu naan ma dama leen batale. d' accord léegi yow ñaata gaal nga mos a yóbbu Europe ñu egg. kan man yow yóbbu naa fa ñaari yoon gaal mu dem ba egg kenn amu ci benn problème xam mu la yaa dawal gaal dégg loolu mu la c'est moi le capitaine dégg nga mu la Ndoye Bane loolu mooy li nekk Ndoye kon bii moo nekkoon sa troisième gaal yaa ngi dégg noonu non bii waaye bii kon troisième non bii mooy ba dernière bi rek bi moo échec nii rek. waaw mais ñaata gaal nga mos a laa laawa nga mos a yab. daa mos a. mos a yóbbu fi. Mm. yóbbu naa fii ñaari gaal gratuit. gars yi yëg ci nii gratuit dem seen yoon. te samay gaal la maa ko moomal sama bopp. yeneen nag. li nga yóbbu mu comme li nga yóbbu mos a yóbbu nee naa la mosuma ci pour li ma lay wax la réalité dégg bu fekkoon ni xaalis laa ciy wut ma tedd est-ce que xam nga ni tey ji état bi ñiy yóbbu sa classe gi la ñuy wër pour jàpp leen ragaluma ko ma jàpp quoi déedéet mais mais mais ñi la doon wër dañoo bari dégguloo ni ma la gis nga ñi ma doon wër noonu lu tax nga may daw man mais non xam nga non ça veut xam nga man yow yaa ngi wax ak. xam nga yow yaa ngi wax ak bi kay wax nga. waaw d'accord wax naa ñoom noonu. waaw même ñooñu ma waxal sax. aw woon ci ñoom confiance. aw ma ci ñoom confiance man buggoon naa fu ma mënee wax nii rek ba affaire bi dem. léegi hmm. ragaluma ki may jàpp. léegi hmm. nag ragaluma loolu. li nga def nii. Hmm. waaw li nga def nii est-ce que xam nga ni suñ la jàppee xam nga xam nga li la ci mën a fekk xam nga. ma ci mën a far lu ma ci mën a fekk comme nag mais ku deful lu yoon defoo yoon. xam nga ni defoo yoon kon. ku deful yoon daal defuloo yoon. mais xam nga ni xam nga ni defoo yoon kon. non non non non non enquête. Ah. li ma def. waaw dégg nga ni la dafa lu baax laa ci jublu. parce que yóbbu naa ci ay nit yu dul jeex. même su fekkee yaa ngi koy yóbbu tamit mais xam nga dañ koy tere. waa déglu rek nu tedd ci. nee naa la kooku illégal la. nee naa leen lii illégal la weddiw ma ni illégal la parce que lu ñuy tere la. kon xam nga li la ci mën a fekk. waaye déglu ma xam nga non xaw ma nu ma ci mën a fekk. parce que mënu ma xam nu ma ci mën a fekk ko. waa léegi sa doom ji nga xam ne moo faatu ci gaal gii. léegi dëjal nga ko ba pare naka sa nja. dogal. gisoo koor bi. gisuma ko loolu la yàlla dogal. koo ci gisul rek dee na. parce que diggante Île des Serpents. foofu ana yaayam. non yaayam mi ngi fi. lu mu la wax. lu mu wax war na laa mere de. mais même déggu loolu ma xam nga àdduna. xam nga àdduna beese rek moo fi nekk. Hmm. am na ñu gën a mettale foofu fii loo mettale rek am na ku la gën a. est que dëj nga ko. non dëj ngeen ko kooku moom jarut a wax parce que am na ay mbokk. da ngeen di wax am na ay papa. góor la wala jigéen am na ay tante am na ay umpaañ. góor la ah dégg nga góor góor la. mais ko sa am nga sa beneen doom bu jigéen boo xam ne dégg naa moom faatuwu ci soowee na. faatuwul soowee na. diw buuma leen pour sacrifier non non non non. mais ñaata ñoo ñaata ñoo faatu ci dama xam loolu pour mën leen yóbbu non pour ma mën a xam ñaata nit noo manqué ci gaal gi. da ngeen di mën a xam dañ may indil nombre bi nu bi nu bi nu bi nu bi nu gis bu nu may indilee nombre bi nu gis. kon ma mën a xam di des mais li ma la mën a wax mooy. 69 personne mi ngi woon foofu ci biir gaal gi. waxunuma lii moo fi des. waaw mais parents yi nga xam ne ñoo la joxoon seen xaalis ñoom est-ce que ñu ngi lay laaj nañ la seen doom anam. laaj nañ ma non déggoo ma ñoom ñëpp kenn gisuguma ci. am na benn am na nag ñu ma ci gis xam nga ni wax yaa ngi dégg am na ñu ma ci gis ko dégg nga li ma wax ne ma noo ana xale yi man leen mais xale yi am na ñu jàpp nañ leen digg ah mun dégg naa ni mbëkk nañ leen am na ñu dee man leen si am nañu ñu ñu dee xam nga après nga dem toog di xaar. dama bugg nga déglu am nga fit nag moom. non non non du affaire de fit. man sama bopp Ibrahima. di nga ni wax mm-hmm. bu ma yoroon gaal gi nga xam ni dem na ba ci biir géej. Mm-hmm. mu am petit problème sax dinaa négocier moom ba kenn du si ah mais da nga encaissé seen xaalis bàyyi leen ñu dem kay. waaye dégg loolu non non bul ni ma da nga encaissé seen xaalis bàyyi leen ñu dem. xam nga Ndakaaru Njaay gii. dégg gaal gi génn fii. da doon dem. non non mais da doon dem. non non gi demul nduy baat. waaw mais da dem néew ma demul. mais da doon gaal gi taxawul rek ñu mbëkk leen. non dama lay expliquer gaal gi demul. gaal gi fi mu nekkoon ci sumbu jun xam nga ni mu la bi mu séenee marine bi ah automatiquement dañuy jéem a évadé wu wut fu mu jéem a làqatu c'est vrai ou faux. Mhm. dégg nga noonu la demee marine bi di leen karkarloo. ñoom it dañoo waroon a taxaw ñu woo ma bi ma nii ma ne ko léegi xam nga la fi am. Hmm? da ngay droité gaal gi mu teer client yi wàcc. mu bañ. non paab ni ma si. ana paab ana paab non paab dégg naa ne ñu gisuma ko moo doon dawal gaal. non sama kii la woon sama élève la quoi sa élève dee na ci géej gi sa doom dee ci géej. waaw dee ci géej loolu la yàlla dogal. mais amul ku dul juum. Ah. waaw nangu naa ne juum naa ko. non non ma baal. loolu loolu yombul. non dégg loolu non yomb fii dara yombu fii. ñi seen doom dee. li ñuy yëg ak di ko sentir du man maa koy yëg. seen doom dee mere nañ la de. doom res la ci nit. dañu ne wax da ngay bokk ak ñun ndey ak baay bu xuree sa doom sax mu metti la. kon loolu xam naa loolu. dan may mere quoi. bu yàlla defoon ban dem ñoom ñu kontaan. dégg hmm. mais nag affaire bi bu amee nii du ñu gis ñu ndogalu yàlla la danaan non moom moo rey sanu doom moo leen yëpp si gaal gi moo leen nangam nangam moo leen nii moo leen nii ñenn ñi sax ne noo yëgunu sax bi seen doom di dem yaa ngi dégg la te sénégalais majorité bi laa la wax majorité bi li ci ëpp seeni ay yaay ak seeni papa ak seeni mag yëg nañu ko waaw noo leen di fayal da ngeen la wala buñ leen fayulee yëg nañ leen da ngeen la wax je suis pas un criminel du ma reykatu nit aw ma it intention wi di yóbbu nit ñi pour ñuy des si géej gi léegi ne la bu fekkuloon ne xaw ma woon géej du ma ko def te it xaalis taxu ma ma ko doon def dégg nga xaalis du xaalis moo taxoon ma koy def. parce que gis naa ne tey ku nekk ni ngi dimbale Macky Sall mi dimbale ku nekk ñeneen ak ñeneen ni ngi dimbale man aw ma lu ma dimbalee kenn jeunesse bi li may dimbalee jeunesse yi mooy. dugal leen ci ay gaal. yóbbu leen Europe. loolu laa leen di dimbale. waaw dégg nga wax. mais saa mais saa bu ma dajee waay. man mën naa. waa xalaas jombi nañ tey fii ba France xam naa ko. nga ne lan ngay dimbale jeunesse bi. comme dimbal comme que kay noonu ni dañuy dimbali réew. nga di Macky Sall nee na mi ngi dimbali réew mi lu nekk maye nan ko fi ay ceeb ay diwlin lu nekk maye nan ko fi yenn gars dañuy toog si seen télé du woo Ndoye Bane ni la kooku def feebar def naa nangam nangam toujours ma nga seetaan télé. waaw dégg kon nag man. kon nag nit ku nekk ni ngay dimbale jeunesse comme man maîtriser naa géej gi xam naa géej li may dimbale ndaw yi mooy yeb leen ci gaal yóbbu leen laaj leen lu néew 200000 200000 gars yi cotisé parce que bu ma ko dajalee day dokk benn somme ma jëndal leen ci gars yi jëndal leen ci. mais suñu dee nag di nga nangu ni yaay responsable. non non non dee du ci am. dee am na ci man rayuma ci kenn dégg nga ni ma lax. kenn dégg nga ni ma lax. kenn.